suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xanaa wax su ko xaaritoon jar doonaa ko am. abonné wu seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. nuyu ñëpp te di leen ziyaare di jiital ci bi ak ziyaar bi. xalifa général de Mouride mi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ziare xalifa général kull koo xamante ni da ngay daal bi Cheikh Moussa mi Seydina Ali di ziare kilifa jotaay bi te mu teewal fi Cheikh Moussa ci bi mi Seydina Omar Cissé ñu ngi koy ziare bu baax di ko jox wàccuwaayam di ziare. sant si ak Souleymane ñaan mi fi jógee léegi di ziare Serigne Mor Loum ñu ngi koy di ko ndokkeel moom it bu baax di wax ne xanaa kàddu yi day kàddu ndigal rek mu tàbbi ci ñun ñu fas yéene jëfeewu waaye bu doon lu ñuy leeral dañu wax ne nee na nañ kon wax dëgg fi yàlla bi ni fi leeral am na solo lool ndax waxtaan nga ci xam-xam ci maarifa ak ci xaqiqa ndax xam-xam bu ci nekk ay géej kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom gën laa dëgëral yokk xam-xam bi te barkeel barki Cheikh Moussa di ziare Cheikh Moussa Faye ci liggéey bi am solo bii ak góor yàlla yi mu àndal ñu ngi koy rafetlu lool di ñaan yàlla lépp loo leen ci mën ren bu déwénee lu ko raw si am sax ko defee ñu ni teew nga fi di jox sa wér te xam ne góor yàlla yi liñ présenté mbooloo bi rek mën naa xam ne mat na. kon dañuy jël sunu nuyoo ñu ci nuyoo góor yàlla waaye dafa am lu wootee ñu ak cant te dañuy wax ne ak cant moom foo déggee nit di ko def rek kam kay def am na lu mu ko defal kon suñu wootee ak cant tànt tànt bi takk rajo yi yëkkati baatu laa ilaaha illallah ne dañuy sant Seex Musaa kon am na lu ñu Seex defal kon lan la ñu Cheikh Moussa defal ba mu tax ñuy sant tey bëri na waaye ci ñun koo xamante ni bi ngay àgg si Cheikh Moussa tuddoo Jean tuddoo Paul man saa Cheikh Moussa saa sama tur kon dafa mel ni dañuy wax ne ci jullit ci leen judd wala ci ay doomi jullit ci leen judd màgg ci ba ñu waree jàng xamuñ Cheikh Moussa ñu yóbbu ñu daara di jàng. ba koroog ñenn ñi jug demaat ci keneen sax jox ko seen bopp ngir yàlla ci biir bu yàgg ba bi ñu dajee ak Cheikh Moussa nag li mat a bàyyi xel mooy ñaari waajur nañ xool poids bi peese ci doomu aadama sëriñ bi leen jàngal alxuraan xoolal poids peese ci doomu aadama ba koroog ngay jéggi kooku demaat ci keneen ne ko aslamtu ki nga mujjee dem moom aslabtu nafsi yi mu gënal la ndey gënal la baay gënal la sëriñ bi la jàngal xam la gënal la sëriñ bi la jàngal baax la léegi kooku nag su la waxee ne la ñu ne sëriñ bi la jàngal alxuraan moo gën lu dul ñoom ndey ak baay moo gën ku dul kon war naa war na war na laa leer na kon cër bi ko jox yelloo bu nekkee ne sëriñ bi la jàngal ni ñu sëriñ bi nga jox sa bopp jébbalu ci moom dafa laa xamante ne lépp looy def ci kaw suuf julli ci gën lépp looy def ci kaw suuf wara ci gën lépp looy def nga gas ngaa ci ko xamal ba nga mën kaa def ci ñoom dañ koy teg ci xumb ñaari ak bi seen seexu mu rabbi la wax seexu mu rabbi waxu sëriñ rek yam ci ak bi seen seexu mu rabbi am ci yéen mu ne moo gën a màgg ak bi seen ñaari waajur am ci ndax li andal seexu mu rabbi yu rabbi ruuxa wa yulqaa ila naa dana sëriñ bi mat sëriñ seexu mu rabbi boobu mooy kii génne ruub taalibe bi jëmbal ko yàlla ki xamal ko yàlla mooy jël nit ki àggale ko ci yàlla mooy jël nit ki wet ko su boobaa nag falaa budda min duxuuli janna far fasu day dugg àjjana mu mel ni dañ ko kon say ñaari waajur nag mu ne wa ammal waalidu yurabbi jisma faqat say ñaari waajur liñ mën mooy toppatoo sa jëmm kese faqat mu ne imma an yakuna min ahli jannati aw an yakuna min ahli naar buñ ci noppee mën naa am nga dem naa am it nga dem naa amul yàlla nag jaam du ñu sukkandiku di xaar yomal xeeb ndem mën naa amul jaam sax nga dul sukkandiku waxuma laat yàlla bi nga xamante ni amul kilifa lu ko neex def léegi nag Sëriñ Tuuba la mu doon jox ay ñoñam buur yàlla yi doon ko woy fii ci Sénégal naan lu ko wër naan Alaaji Maalik jàng ma ne ne laa gën a riir si jar na woon doon na moom Cheikh Tidiane mbóot moomu alaaj Maalik doon joxe Sëriñ Tuubaa dañ ko joxe mbóot moomu la ñu Seex Musaa jox moo tax ñuy sant mbóot moomu nag secret la boo xamante ni boo doon wër ci liñ tuddee kaamilu alxuraan bii ñu jaay ci marché bi di ko jàng ci daara nga dem Bakara ba Naas loo ko mokkal mokkal mokkal te demoo ci nit jox ko sa bopp mbóot moomu doon a jàng maa ngi koy wax barki démb rek. ma ne boo demee dañ lay wax ne la alxuraan lépp lii mooy waxu yàlla téere la bu jugee ci yàlla wàcc si yonent yàlla Muhammad salaa salaam ñu ne waxu yàlla la damay wax ne kaamil boobu li ci yàlla wax li nga xamante ni moo ci ay kàddoom moom yàlla buñ ko génnee woon teg ko dee xale bu ko jàng ñetti weer ñu ne moo kàddu ko léegi nag yunadi min ba'di ismu ahmad falamma jaa bi daal xaaral asir lu biir ku ñëw denc Cheikh Moussa wala ku àndoon ak Cheikh Moussa du la leen. fóore yi luñ ko firee ñu ne yaati dana ñëw min ba'di sama ginnaaw ismu turu kii ñëw ahmad ahmad lay tudd falamma jaa bi daal bu ngeen di leen dikkee dama dikkee doon xaaral asir lu biir leen wax ne day ñëw loolu la ko fóore yi bëgg a firee alxuraan dina taxaw ne ku weddi kenn ci yonent yàlla yi jiitu woon weddi nga ñëpp. kon ñun ñi nga xamante ni dañ tuddee suñu bopp ay musulman bu ñu gëm yenn saa ci luñ koy gëm nga xam dañ takki ko waar ba xam tam église la kon lu ñuy gëm yenn saa te nee nañ dañ caa war a gëm te ginnaaw gëm wuti la ginnaaw wuti topp la moo tax sànq bi ñu koy leeral leer mu ko plan na ko plan bii laa bëgg nga tabaxal ma mu nekk ñett pees ñett néeg aaya bi ne kutiba alaykum siyaamu fa la nekk dem ci alxuraan kon a bi ne wax demal woori ak weeru koor bi alxuraan wàcc bokkul ah alxuraan lañ jàpp mu ne kutiba alaykum siyaamu kama kutiba alaykum min qablikum la'allakum tattaqun warul naa ci yow nga la woon nga jiitu ba pare ñu ne ci biir woor boobu yàlla digal la alxuraan la moo tax alxuraan siyaamu la wàcc mais wàccul ci nag dañ koy def guddi di ko def bëccëg siyaamu dañ def guddi di ko def bëccëg moo tax ci kàddu yonent bi ci lañ déggee ñu ne nañu woor bëccëg yi bu guddi yi ñu lekk mais yàlla weer wi de weer wi de gaa bëgg a woor ay su bëccëg di lekk guddi gi diglewuloo siyaamu bu dem bëccëg dañ kaa def léegi nag keneen di dox di dox di dox di dox bés kanam ñu ne soo wooree sa cër yëpp daa war a woor léegi ñun comprendre nañ bu dog jotee nu jëmm soo ko waxee mooy bañ a dox ci lu bon kon bu dog jotee lan war a dogee mooy ba xam daa war a dox lu bon moo tax siyaamu ak suuf mu bokk de. bu tàng bu nekkee wóoram mooy ba nga dox lu ñu ñu ne maam Cheikh Ibra Fall toogoon nag ba koroo mu jug dem di gori yëkkati seen muñam lépp gàcce bu mu bëgg a gor dégg muy tudd laa ilaha illallah bi mu ñëwee ba ko Sëriñ Tuubaa dina ko daan nañ ko tudd yaa ko déggul ba tey ñu ngi koy tudd alxuraan def kaa in min kulli shay'in laa yusabbih bihamdihi yàlla dañu amul ma lenn loo xamante ni jamono gi nekk ak waxtu wu nekk mi ngi sabbal laa ilaha illallah kon secret bi nga xamante ni moom la Cheikh Moussa jox sëñ bi wax na ko léegi mbirum baatin la mais du mbirum saayir mbirum saayir mbirum baatin la mbirum ah Seydina Aliou Seck fii Seydina Aliou Seck ku dëkk Saalum ñu yëpp xam nañ ko kon bi mu ñëwee Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa dana ko foo jugee mu ne ko Saalum mu ne ko noo tudd mu ne ko Aliou Seck Sëriñ Tuubaa ne ko Aliou Seck Sëriñ Tuubaa ne ko mën na la jàcc yéen naa sama mboolem cëriñ benn mos cee mooy yàlla. Touba Sëñ Touba loolu yonent bi saa salaam ba alxuraan waxoon ko ne laa ilaaha illallaah di njëkkal sa bàkkaar bu njëkk ak bu mujj moo ko mooy lan mooy réere yàlla ba pare bëgg caa moo tax sànq wax na ko amu kenn koo xamante ni nga mën a am cër ci lu dul da ngaa dem seeti wasile bu la jël sa xol bi raxas ko ni ñu raxasee woon xol yu Musaa salaam jël leer def ko loolu taxoon mag ñi toppoon Sëriñ Tuubaa sëñ Daara Assane Ndiaye fóore la woon sëñ Daara Adama Lo moo doon jàngal jabatu Mbàkke ni koo ko kaamil alxuraan ma jox la lu gën téere bi nga tiim dana ko gisu ko ndax téere bi dafa ciy jàng alxuraan damaa damaa géeju ci alxuraan géeju ci boobu malaaka yi di téyante may dégg ndéeli sëñ Tuubaa ne moo du mbàjj ma ñan mu ne ko mbàkke mu ne ko dégg ndéeli bokk ci ndéelee ko gën dégg xool rek tey jii nii loi bi ñu woosee bi ñu woote assemblée nga toog fii toog fii nii ci yaa ngi dégg li ñu fay woote ni mais est ce que yow sa kàddu mën na fa dara soo bëggee bokk ci wii wala nooyee day doon député te gis nga député mooy gouvernement yàlla bi gouvernement bu gën a mag mooy gouvernement yàlla bi mooy député lépp loo def tant que kii woo député bi yàlla topp la ci dara te ji ni bu defee dara lu ñuy wax balaa ñu kaa mën a jàpp dañuy sumbi malaanu kiiraay loolu mooy aarif moo tax Cheikh Fall ne duñ julli duñ woor duñ déedéet la yor tant yaa ngi def ci mbir yàlla yàlla di la fayal say bor. dama ma daal benn jour ma jugee ak ñett di mbugal ànd ak ay baykat ñu ñëwee ba kaaram grand doom bi ñu jëloon ma jox ko cinq mille moo cee jël mille franc mu ne amul wecce napp tànk jëlee ay idée ñu ñëw bu nekkee mënoo nga dem ba bàyyi la yàlla ba léegi di nga fay kooku sax wallaahi yàlla bu taal bi seetlu sax. taal bi Maam Kabir bari la ab tàngoor la moo ne ko eh, dama doon jël sa cinq mille kii boo wecceekuwul jël sa mille francs yi ba la ngeen doon gisee barki Cheikh Moussa wallaahi bi gisee Cheikh Moussa Sëñ Tuubaa daf kaa wax ma wax ko ko luy tax bis jot ma taxaw di la yomb. mu ne bis boobu ñu tuddee bis benn bi ku ma fay seet doo ma gis kuy xaar ba seet la gis. ku ci nekk li nga war a dund yàlla waxoon na la ndax dañ ko signé ci lu leer nañ ni ñu signé banque ñu ne la période bi nangam nga ngay fay kenn ku ci nekk li nga signé ak yàlla yàlla jox na la dat dat boo xamante ni ci la ci ko moo tax koroog bi nga ñëwee ci sang bi mu xamal la ko moo tax yow dara du la dundee si yow sang bi dund na ko yàlla bi mu amalee buntu kanselam bi bi ko bi ñeenti seen waaye mu jaar si juróom-benn sax am na lépp yàlla dégg na ci la jàpp war a te koo ci sang bi tey yi xamal la ngay génn fii dugg fii génn fii dugg fii génn fii dugg fii am na lu koy gaar am na lu moo tax ku ku demoon ci sëriñ man sëriñ moo xamal la loolu ci ko Cheikh Moussa wala ku Cheikh Moussa defar ci làmbatu rek ngay teg sa dund yoon kilifa la ma sax maa ngi nettali koro rek benn góor yàlla dañaa toog benn jëwriñam faatu comme ni ko sànni bu telepon, waxee léegi nii wallaahi barki si am sax yàlla xamal ma ne ma jàllu ma woo ko ñun du ñu ko sëñ naa mu ko taal nga diw ci xam ah ko ñaanal am ci ko mu jàng xëy ay nag jàngul alxuraan def lépp ñu toogaat ay fan mu xoolaat ko jàng ñu toogaat ak diir walla yàlla ko mu ne ma ci moom dara ma tax ba muy dund xamoo ci moom dara ëllëg ma ko digoon te ba tey jii moom dara man koo xam nga ne koo xamoo foo koy te góor yàlla yi gis nga Cheikh moo ni mooy ñi te lépp moo tax nit dee ñu ne tey la ñu def saraas ba ñett fan yi ba ci kanam ñu ne saraxu juróom-ñaari fan ba ci kanam ñu ne saraxu ñeent fukki guddi ñeent fukki guddi yooyu bu jàllee damay wax ñaan ñi am yaakaar a ci des mais xamatuñ ci yow dara kon dawal Cheikh Moussa yii ku doon mën da wax ñu dee fuñ ne wax leen ñuy judd fu ñu jógee mënoo leen mënoo leen kilifa mën nga leen a mag nag waaye doo leen mag kilifa sëñ Tuubaa ba muy yilif ay magam pourtant ñun ñoo ko magoon de waaye mënuñu ko kilifa alal maalik bi ñu daan ko Maodo ñëpp ko doon waxu ñoo ko bëggoon ci saar waaye matuñu woon ko kilifa leeru yàlla gi sëñ Tuubaa dane ku ko sa doom yaakaar yi kuy bañ ko dox sigaret këram nga mën kaa doon jaay ko di yàlla di ngeen jubóo du sotti kon jàmm yi dañ leen wax li li mën a nekk li leen war a wax li mën a am li mën a am ñàkk loolu baax njubug yàlla ji moom la sëñ Aliou Ndiaye doon wax fii ci dëkk bi naan sëñ Aliou Ndiaye fii gaa xam ne ci Saalum gii ba muy wax naan am na mbër bu nekk daal danaa ko weer ba mu réew kooku joxoon na ma jaaroo ne dama koy denc ndax mbóot la lu ne ko dégg dafa koy dégg ndax mbon la jaar jaar bu ci dégg ndax mbon la dinaa ko weer ba mu weeru gaa yi ñëw mu ne moom joxoon na ma jaar waaye jaar dafa koy dégg ndax bon mbon la woon fekk na laa ilaaha illallaah kon nañ xam ne li nga xamante ni góor yàlla yi tàllal nañ ko fii ci Casamance moom la sëriñ si yëpp ku mos a lislaam lii moo ko samp lii ku mos a lislaam lii moo ko samp